loo am lu dul kamante sañ naa mi amee rey amee dundal dekkal na xel mi fi woon dem bu ñu boo mooy moo di ko maanu fii doon wutaay dakk na booba bur ba ci mayam tëbb ko doole dolli ko ci man manam bakkan tëggub xareem di yaakaar na ko woon jëme ci xel xel wan ko lépp la mu doon mu tëgg jiin di mandikoo saytaane bi koy digal te mooy dugal yaay daane ñu bokk samp sadiqas ca foofe yàlla yebal si ak kuréel ni meefee dimbali xel dolli ko ay karaama seytaane gis te moo di seen saamaan ma moo jëkk ci lok di wax ni man ka dem naa bu ngeen gisul ta xamuleen man gis naa moo jëkk di lok di wax ni man ka dem naa bu ngeen gisul takamu leen man gis naa mott ni meng ndugalam ya wér na leen gaayam ya tuuse waaru gàcce wër na leen xel song ak soldaar bu doy bànneex ba ca kër bakkan génnee ko dagam ba tarfatalaay ni doo fa fekk lu nuroog jëfi bakkan baalu moom ba ay haroom képp ku la bakkan waloon mu folli ak fu wax ni ku daloon na dalli mu jàng sikre saaru nam li canawoon innal mulu uka yeggaleel ba yafaluun mu jëg ci yar dellu ca ru ak màggal ni ko fabal sa réew a ngoog yow lañu fal amul ku fi yëngal amul kuy xorxoral ñépp ni noot lépp ni lew kenn desul jamono ñooy lépp dellu ñeel boroom ñépp di jaamu yàlla lii amul moroom na yàlla dottil say xanaati jaani ak ay ñoñam saa yi ku bëgg a jaamu jiitalal ak xamlu safara tey jëmm tebul ko jamlu Ibn Abbas nee na laajal ña xam te jëfe seen xam-xam yaa luy mbiri diine farata sunnaam ya jëkkeel di laaj lislaama wal imaana maanaawuma te dellu laaj lisaana li lee di njullit lee di rafetal déglul bu baax kuy xamle lii fi amatul illaa xaliilan ñuy desit ci ña fi woon na yàlla buur barkeel ci ñoom te sange leen na ñépp wax amiin ñi buñ fi toxoo yàlla bu gaaw lay des fi mooy naxeek naxoo na yàlla dottil say xanaati jaani ak ay ñoñam saa i bari duwaani na yàlla buur bi may na ak tawfiixa ci toppi ndigal ñoom tasdiqa na yàlla dootil fay xanaa ti jaani ak ay ñoñam saa yu bari